لا يعلم أي تعلم بيميت لن تدينت وحب لن دينت سرين تبا من بيا قال قوعدن يا لاخ الأغبياء ثم برام بأنهم معا من قم باق خمر sunu borom terale na ak samay taalibe ne lépp luy musiba wala mu di ak mbugal dana leen teg nabaam dunya wa xura naafiu bima bi taatihimul manaafiu loolu moom yaakaar naa ne ñëpp gis nañ Sëriñ Tuubaa nee na yàlla du jox samay taalibe tiraanga yàlla dafa joxe liy maye tiraanga la may taalibe liy joxe tiraanga tiraanga boo ko amee bu jeexee day jeex waaye luy maye tiraanga da jeex sunu borom jox na taalibe Sëñ Tuubaa yi liy maye teraanga